bis bi moom a ah, neex rek barke maam Cheikh Ibra waaw ndax moom ah, pour ñëw fi teewal xasida yi moom téye nañ ko moom bu baax a baax moom yëg si suñ bopp moom barke maam Cheikh waaw xéwal yi nag neex nag añ yeeg yooyu noonu moom man moom xam nga damaa xaw a bëgg lekk moom barke maam Cheikh Ibra xam naa ne di nga jox jëwriñ bii nii moo gën moo gën. sëñ bi noo dundee bis bis bi ak yëg-yëg bi nga am bi sëñ bi ñaanee. waaw ni ngi saare murid yëpp rek te ñaanal seex Moudou Mountakha mu yàgg fi lool. ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi lool barke maam Cheikh Ibra waaw bis bi rek borom Tuubaa barke maam Cheikh Ibra san nan baax a baax a baax dundaan nañ sëriñ bi tey dund xaside bu wér waaye yégée ni xaside yi rek mooy dara yégée nañ ci xaside yi mooy dara barke maam Cheikh Ibra ndax dane karamati xabtu yet yi le waxul len loolu la kon suñu muntaxaa daa war a wax daa war wax a ne daa wax naa jàmm ne affaire bi ci téere yi la barke sëñ Tuubaa wallahu yansuru ni wal xalqu tadbaxu ni fil barri wal baxri za nafin bi laa darin comme que njëriñu ànd ak lor la kon nañ ne ci xasida yi te moom nee woon na xasida yi mooy ay tànkam tànkam ko topp bu yàgg da jot dem kon ñoo ngi wax mujj yëpp ñun soowaat téere yi moo fi des ci liggéey barke maam Cheikh Ibra na ñëpp nag ñu am tawfeex sëriñ barke maam Cheikh Ibra jégal bis bi bis la boo xam ne nii maanaam man nañ ni dañuy sant sëñ Touba ñun ñëpp ndax euh, day bis bu beru ci àdduna bi euh, bis boo xam ne dañoo xëyee suba ba ngoon di jàng xasaay di sëñ Tuubaa yi ngir yàlla ak bu yonentam sëriñ bi mosuñoo lim ñu defal bëri na waaye ci ñun ñi nga xamee ni nii sunu génération ak lu ko jiitu mosuñ fi dégg lu mel nii maanaam sëñ Muntaxa defal nañu loo xam ne ni jomb nañu ci lu nëbb ak lu feeñ ku ko xam ak ku ko xamul ndax dafa ñoo jotu am murit nag lu mën di am ndigalu ko gënal waaye ndigal loo xamee ni nii ñi maasel ak ñu ko jiitu moo ko ci njëkk am ci ñim jamonoon teel loolu loolu kawe na njort ëpp na ëpp na maanaam daal amul leen lu ñu ci mën a wax lu dul ak cant sant gu ëpp sant ndax li ci biir xol yi mënta génn. naa jërër jàll. kenn du mam mam. Murid noo dundee bis bi. bis bi kay tarkala macha allah barki Sëriñ Tuubaa nañ lool macha allah. bis bi dafa ala daw mi barke borom Touba lépp Cheikhul Khadim la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. nañ dellu ci tuba Touba. nañ fexe kon comme que delloo nañ fa. nañ fexe ba buñ fa jugati. jërëjëf. am na am na. ñu noo xam ne bis moom daa doon bisub xasida Serigne Mountakha woote ko murid yëpp teew ci teew ci ànd seeg Pastef ànd seeg Pastef ànd dogu xanaa boo gisee te mbooloo mi ni demee nga xam ne am na solo lool nga xam ne maanaam mbirum sëñ Touba moom moo jëmee noon mbirum sëñ Touba mbirum sëñ Touba moom tànk kanam rek la moom amul tànk ginnaaw boo xoolee tey mbooloo mi ni demee nga xam ne dégg na de nga xam ne sëñ Touba rek ànd ak sëñ Touba rek moo am solo sëñ Touba rek moo jar a àndal nga gis maanaam lim xës da yéen fi jàng lim yi moom kenn mënu ko kenn mënu ta xam lim yi moom lim xës da yéen fi jàng moom kenn mënu ta xam lim yi naan ak alxuraan yi na ak li mu saatu bi maanaam lépp li muy daal maanaam bëri na lool ba kenn mënu kaa xam daal daal ñu gën a gën fonkaat sëriñ bi rek gën a toppaat ndigal gën a dégluwaat ndigal sëñ Muntaxa gën a jëfewaat ndigal li xam ne murit moom amul lu dul ndigal murit moom lu dul ndigal kon bu ko defee ñu gën fonkaat sëriñ bi rek gën a dégluwaat ndigal bi baax a baax incha allah. xanaa kontaan rek di ñaan sëñ Muntaxa yal na fi yàgg lool te wér ba li mu bëgg a liggéey sëriñ Touba mu def ci lu kawe njortam xol yëpp kontaan nan yëpp maase nan bég boole jullit yi lépp lu muy li ñu lépp boole na ko benn tey yal na fanam gudd Mbàkke. ah bis bi moom wax dëgg yàlla ñoo si kontaan moom ñoo ngi siy kontaan ànd seeg mbégte wax dëgg yàlla sëñ Muntaxa su wootee ñëppay ñëw sëñ Muntaxa su wootee ñëppay ñëw ñun soxna jaar yi nekkoon Poroxaan daaru minam lañ daloon waaw waaye nag sëñ Muntaxa moom wax dëgg yàlla mooy mbégu murid yi moom mooy mbégu murid yi dañ koy sant bu baax di ko gërëm bu ndax moom. li mu li mu li mu woote nii ab ndigal moom su xasee ba ba jub jëfe rek. ñu yendoo jàng alxuraan jàng xasida bëggee yow tey ban yëg-yëg nga gis en tant que jigéen ak jëm. wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd sama xol dafa sedd guy guy parce que alxuraan gi nga xamante ne ah, alxuraan dafay dundal alxuraan dafa nekk loo xamante ne dafay dundal ruux alxuraan dafay dundal ruux ndax fi mu toll nii fekkoon na ñëpp dañoo maase di jàng alxuraan léegi jëf ji boñ di arrêté. alxuraan fu muy jug ñu fay jàng alxuraan jëf ji bon ñi day arrêté wax dëgg yàlla ñoo sant bu baax sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér ndaxte lii mu woote waa Touba ñëpp wuy su ko waa Ndakaar ñëpp wuy su moom rek moo ko sañ moom rek moo ko sañ Mbàkke Bàll li mu si yoon bi yàlla yàlla yàlla naalam yëpp egg bu yàlla bu ko kenn eggaleel yàlla naalam yëpp egg yàlla bu ko kenn eggaleel ñun ñëpp ñu ànd kaag moom barki soxna jaar ñun ñëpp ñu ànd kaag moom barki soxna jaar yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué le ñu màggal ko si màggalu jàmm ak salaam na ko ñëpp fekkee wasalaam ñu yendu ci bis bi tey jàng alxuraan ak xasida ban yëg-yëg nga ci am waaw sant na lool mooy yëg ne wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek moo fi nekk yëg-yëg bi ci am daal mooy li sëñ mun taxa waxoon ne bis bi bàq la bàq nag lu ci waay ji incha allahu taala te toppatoo ko da nga ko am na nga ko bëggee euh, kon nag euh, ñu ngi ñaan ci kàttanu sëñ Tuubaa lépp loo xam ne jullit yi wut ci nañ ko fi murit yi wut ko fi yàlla nañ ko am ba am lu kawe suñu njort am nañ ci yaakaar lool nag ndax ki ko santaane muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ko njëkk def ci yoonu murit ba yoonu murit sasoo ba léegi amul benn xalifa bu ma sa santaane bisub xasida yi comme nii kon sëñ Muntaxa njukkalaat na xasida yi delloowaat na xasida yi seen gëdd dina taxaat taalibe yi gën a fonkaat xasida yi gën a xamaat lan mooy mbindum Sëriñ Touba te Sëriñ Touba dafa waxoon ci eh, ci ci eh, xasidaam ne karamati xattu yadi fi ay muayyadi wa kaana lii bil afyadi allahu muulil karam Sëriñ Touba xasida yi mu bind mooy karaamaam julli gim julli ci géej géej maa yombaag wii wii rek yooyu yëpp moom jàppewu ko karaama karaamaam mooy mbindum mbindum mi mbindum loxoom mi moom lañ fi yendoo woon a jàng nag tey kon ñu ngi ciy fasal adduna bi yëpp di ci fasal murit yëpp di ci fasal taalibe yëpp lépp loo xam ne waaye indi na ko fi ci aajo indi ko fi ci soxla yàlla na ko yàlla sa faj lu fi waaye indi ci yitte yàlla na ko yàlla faj yàlla nañ ko fi teewewaat ndéegi ni déwén te kenn bañ a manqué te yàlla yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha te wéral ay cëram salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu delluwaat nuyu leen ziare leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne saa su ne yéenay jàkkaarloog Waarwi TV nekk àllu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul tey ji nag xëyoon na leen woon li nga xam ne mooy suba gi ànd ak yéen ci ngoon gi nii fi mu toll nii nag ku tedd ki ku baax ki ñaan na di ko ñaanal balay sa yàlla na yàlla guddal fanam te wérali cëram te liggéey bi muy liggéey it yàlla may ko kattan ak mën-mën ba man ko yeggate yàlla may ñu ànd koog moom ci doore Serigne Touba ndax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa fonkoon alxuraan fonk xasida moo war a bisu tey bi nag alxuraan ci ku ne xam ne lim yi kenn xamul ñaata la toll ci ay kaamil yoo xam ne wàcce nañ ko ci bisu tey bii ci xasida ñaan ci ku tedd ki ñaan yim ñaan ñëpp gis nañ ko ñuy ñaan nag ci barke yàlla bu tedd bi nga xam ne mooy buur bi nga xam ne mooy kun fa yàkkun yàlla suñu borom rek moo fi ne mooy ki nga xam ne mooy borom bët bu bi ñu ngi koy ñaan ci barke Seydina Mouhamed sangub sang yi ci barke suñu jàmbaar ji nga xam ne moo demoon ca géej ga suñ jàmbaar ji nga xam ne moo demoon Gabon suñu jàmbaar ji nga xam ne moo demoon Maayombe suñu jàmbaar ji nga xam ne ba mu méttee moom rek moo fi nekk ndaa wax ji li muy bëri bëri bëri Bamba rek julli ci géej gi ñu ngi koy ñaan yàlla na fi yàlla jële jàngoro ji nga xam ne mi ngi ci réew mi ñu ngi ci àdduna si yàlla na ko fi yàlla jële ndax si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mën na lu raw lii kon nag ñu ngi koy ñaan balay sa ma nga ci àjjana di noppalu ñu ñaan ko mu jële fi mbas mi te gën a rafetal jikko yi te gën a fóot xol yi te gën a te jàmm te gën a ànd te yàlla rek tax ndax buñ àndee te yàlla rek tax fóot xol yi sëriñ Tuubaa mi ngi fi li fi ba mi ngi fi dara tuxuwul ndax jant bi benn jant la weer bi benn weer suuf sin dëgg benn suuf la kon nañ delloo suwaar xele àddina soppeeku ñun ñoo soppeeku nañ delloo suwaar xele toroy ci ku tedd kii nga xam ne liggéey bi mi ngi koy ànd ak i rakkam ànd ko njabootu maam Cheikh Rafal ak seex yi nga xam ne ñoo àndoon na sëriñ Tuubaa ci liggéey bu rëy bi nga xam ne Xaadimal Moustapha doon na ko liggéey kon nag ñu jéem a muññante jàppalante dimbalante ki ëpp doole na yërëm ki mu ëpp doole yow mi nekk ndawit na nga jox cer ki mag ñu ñaanalante jàmm suturaalante yàlla wàcce coono yi déggoonte yàlla bàyyi ñu ñun ñëpp ñu fekk ko heure bi déwén ndax tey jii nag day benn bis rek ci àdduna yoonu murit yàgg na lool mboolem xalifa si Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul yi ndax doomi Sëriñ Tuubaa ne waaye Sëriñ Muntaxa Basiir mi ndax lan na li ci maam moo ne ca sët ba moo war a sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru mi bisam bi mu woote ni ndam rek la ci am ndam niñ ci am na tey jii ñoonu murid ñëpp war a kontaan imu islamique sax laay wax ñun jullit yëpp ñoo war a kontaan rawatina ñun yoonu murid nan gën a dëgguwaay gën a jàppalante ñaana sëriñ Muntaxa Bachir yàlla guddal fanam lool Mbàkke ànd ko suñ seex jëmb faal ak ñun donga yi ñu ànd ak moom ci liggéey bi di ñaanal nag suñu waaji suñ xarit di ko jaal suñu Cheikh Aliou Mbacke moom dafa ñibbi àjjana suñu waajuroo suñu Ahmed Aliou di ko ñaana suñu borom fam nekk yal na ko dàqal fi mu jóge di ko jaal suñu baay suñu xarit si Cheikh ndax te yàgg-yàgg dañuy dem nay rafet bu dee rafet rek day baax di ñaa jaalit suñu xalifa yi nga xam ne ñoo fi génn ci ñaari fan yi muy suñu waajur Ndiassane ak suñu Ceneba astafurla suñu waajur Ceneba di jaale tamit uh, waa Laayeen yëpp ndax dañ fa am ay wóllëre yoo xam ne dañ ñoo bëgg sof ñun di leen ñaanal ba baax tamit yàlla na yàlla nangu ñaan yi suñu waajur yooyu tamit xalifa yu tedd yooyu ñibbi àjjana yàlla xare leen àjjana ci barke Seydina Mohamed di leen waxaat nag Waarwi TV lii mooy yitteem liggéey Serigne Touba mooy li ñu tax a jóg saa suñ xëyee ci la ñuy dox ci la ñuy wax moo waral fan yi yëpp bi biñ ko commencé ba na ngeen si yéen ngi doon ànd ak ñun dara ump leen ci dara réer leen ci fii nag la ñuy tàggatoo ak yéen di leen joxaat beneen rendez-vous ci beneen na Sourna Xasida 2022 incha allah ñu fekk ko ñun ñëpp te ko di leen jox rendez-vous nag màggal Sëñ Abdou Khadre suba la na ci ñëpp gën a bàyyi xel daal taas ñu ci barkeem màggala Daaru Xuddoos mi ngi ñëw ñu màggala Touba mi ngi ñëw kon nag ñu ñaanal bu baax a baax Sëriñ Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg te wér ànd koog ñun dongoy suñu seex jëmb Fall yal na fa yàgg te wér te ànd koog donga yi sama wasale sama baay suñu Seex Mbàkke Sooy bu yal na fu yàlla bàyyi loolu tam ànd koog njaboot sëriñ Sooy bu gépp kon na fi la leen waar di tàggoo ci cameraman bi sama cameraman bu baax bi Sané ci micro bi soxna Jaara moo ci nekk ca régie ba mand faak sëriñ Basiru sëñ Seex Sàmm ñi doon jàpp ci liggéey bi yëpp di sant di gërëm waa daaray Kamil saa su ne day rafetal liggéey bi di sant Baye Moustapha Diatara ci jàppale gi nga xam ne mu ñu koy jàppale di sant presse Touba ndax nii ñu àndee wallahi azimi xol yëpp a neex xol yëpp a liw kon na tey jii ku sa xol seddu setal noo def ñi ngi ñaan sëriñ Mountakha yàlla na fi yaa yàggal te wér ñu leen di joxaat rendez-vous incha allah ci yeneen jotaay ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul